Reug Reug am na capacité pour daan ku dul bombardier dégg nga ma làmb xale kay def te bombardier comme ni nga ko waxee champion la def na fi lu kenn deful doon roi des arènes deux fois tu vois kon bu bëreek man amul lenn lu mu siy gagné au contraire ñun ñoo siy gagné ndax ñun ñoo nekk suñu yoon mais moom mu bëreeg man amul lenn lu mu siy gagné tu vois xam naa moo la siy gagné mais amul lenn lu mu amul lenn amul lenn lu ma si lu siy gañe moom tu waa kon man non du xaru ndax man lu ma non non non non man lu ma gëm la lu nekk si man ku dul bombardier sa maa ko man nag incha allah li si kanam réew li bët na combat bi taxaw rek incha allah dinañ xam fu wànne di mu dégg bëtam